ki nga xamante ni mooy Pape Ngom mu wax euh, xol di sedd na na xol yi sedd waaye Pape Ngom Pape Samba suñu mënee dem. soxol di sedd su ma la soxol di sedd soxol di la waylee soxol di sedd may béy bi soxol di sedd man de jëndal la iPhone jëndal naa la oto man de tabaxal naa la sa tool my baby waaw waaw sa xol di sedd su ma la waylee sa di sedd my baby sa xol di sedd su ma la waylee sa xol di sedd maayu biir sa xol di sedd acca Pape Ngom euh, Samira suñu invité euh, Pape Ngom way na sa xol bi di sedd waaw sa ba mel ni xarit laa defee lam nekk duñu toppatool ni euh, dañ lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi waaw Abba maa lay ziar Pape ñu ngi lay kontaanee di nuyu soxna si sa xol di sedd nag mille 2020 bi dafa ñëw tamit xol yëpp xaw a tàng xaw a tàng ak corona bi yaa ma gën a xam mais nag 2021 bi xool yëpp war a sedd waaw ndax lii nag jigéen ñi ñëw ko moom ndax jigéen yàllaa ko sagal yàllaa ko teral lii nag yéen laa ko may jigéen ñi moom sa xol di sedd man dama bëgg lii ci artiste waaw sa habillement say lunette sa chapeau lépp artiste quoi. lii man lii man lii dama ko bëgg ci artiste. xam ne kii artiste la comme mhm. Souleymane Faye. Mhm. Mhm. am na solo. waaw lii yëpp sa xol di sedd ah. man sa xol di sedd laa ko tuddee ndaxte 2021 bi xol yëpp war a sedd. dëgg la dëgg la Abba mi tamit di ko ñaanal xolam di sedd. ndeysaan xam naa mi ngi seddal xolu soxnam. ndeysaan yow tamit parrain. kon sa xol di sedd rek day seddal ay xolu nit ñu bari moom. waaw di seddal xolu nit ñu bari quoi boo taxawee ci télé bi moom nit la koo xam ni buggul xolu kenn tàng moom Samira mii. Ah, xol yu bari da koy seddal moom. man am naa soxna. waaw xolam rek laay def. muy ah, seddal moom ñu bari lay seddal seen xol. ñu baree bare moom moom mii kulim juum day seddal seen xol. yal na yàlla sàmm la. yal na yàlla defal la jàmm. amiin moom xolu ASC la yor. wallahi supporters yi fii commission culturelle ba fee. joueurs yi fii entre yàlla na yàlla defal ko jàmm. Samira bi ku baax la day di seex la waaw euh, léegi fi ñu toll nii euh, bii sa premier son la yaakaar naa wala. non non du sama premier son am na yeneen son yu mu mujjee def si si ginnaaw. Mhm. mais bii laa mujjee génnee ma tuddee ko soo xol di sedd. Mhm. sagal si jigéen nag quoi. ndaxte jigéen dafa sonn jigéen ñi suñu yaay yi jigéen lépp ko jigéen euh, sër bu weex la la ci takk dafa yomb góor sër bu ñuul la ci takk du mhm. jigéen yàllaa ko tere wayal ah. ma jigéen weex laay takk dafa yomba lool góor sër bu lay aba la ca takk maanaam du feeñ jigéen yàllaa ko teral waay aba yaa ngi sagal jigéen noo waaw waaw jigéenay suñu yaay jigéenay suñu maam jigéenay suñu jigéenooy abaa yaa bëgg sa séeri koko ba mu jeex lool yaa ngi sagal jigéen billaay sama waajee baxte gore waaw waaw ibu juufee ju joxo baay mi ngi sagal jigéen ew sama waajee baxte gore sagal jigéen boo ko defee loo yootu daan ko lu la yootu dal sa kaw du la daan ndaxte jigéen noo yàlla leen tëral sër bu weex la la ca takk yomb lool góor sër bu ñuul la la ca takk maanaam du fee jigéen yàlla ko tëral abaa waaw loolu laa way jigéen ñi. naanaan nga de ñu bëgg ko ñu bañ ko moom. naanaan dafa am fu mu ma yóbbu ndeysaan ci hmm. dem ci yàlla yu nangu loolu. octave lay waye octave lay waye waaw sori dafa yàgg ci way bi wala. Hmm. ñaata temps euh, yàgg nañ ci quoi ndaxte bu nekkee xale ba léegi ñu ngi way nekk loo xam ne nag instant yii euh, dañ ci yàgg. ku la inspiré. Ah? ku la inspiré ci ay way. man nag way nangu loolu rek laa leen déglu. jëm jàlla jànji faal ma sàmba nee faal fu ma woyee rek waaw lay jox public bi waaw loolu ñu bari tan ma koy wax mhm. waaw bu njëkkoon ko way dañu lay génnee alaaji booy naar yaa ñu fotoon fii baay yaa delloo Cheikh na Cheikh Sadou Abi borom gànnaar anim zaat yonaney maam jë ku nuy coow baa ñu koy tagga jaar na fii baay gu gu taggaa ngi nii xale ci yow lañuy jànge yéeg abaa ci yow la ñuy jaar buntu baa ngi aba ayo gaaf ku fàtt sa demba fa nga jëm du leer ni yàlla bindee jaam di fàtteey noonu la bindee doom du fàtte bàyyi booy naar métti woon na lool fi lan daan fanaan waaw loolu jëm jàlla jàngi Fall Massamba Ndéné Fall Massamba Ndéné Fall nongo en tout cas seddal nga suñu xol yi bu baax a baax li nga xamante ni mooy vidéo bu rafet bi ku ko a seetaan fan lay ko bëgg a seetaan nag euh, da nga dem YouTube mi ngi YouTube di Instagram TikTok yëpp mi ngi foofu ci ban tur Pape dafay Pape Ngom rek yaa ma gën a xam quoi sa xol di sedd. sedd. ñu ngi lay kontaanee bu baax jaajëfal nañ la bu baax a baax.